suñu suñu administration euh, suñu justice suñu force de défense et de sécurité war nañ ko def pour s'adapter au au au au temps euh, à à l'ère du à l'ère du temps mm-hmm. euh, yow ak capitaine Dièye mm-hmm. vous êtes plié privé de de parole vous êtes la grande muette et à un temps T de votre carrière vous décidez de prendre la la parole et de et de et de parler alors est-ce qu'il faut euh, réformer euh, le mode de fonctionnement de nos armées est-ce qu'il faut continuer euh, à vous appeler la grande muette ou est-ce qu'il faut comme dans d'autres pays comme ça se fait dans d'autres pays a les syndicats de police voilà c'est organisé de telle sorte que les hommes à l'intérieur arrive à, s'exprimer et à ne pas péter des câbles euh, ou à, à être obligé de poser des actes comme yéen des actes de défiance euh, comme yéen yi ngeen poser parce que c'est de la défiance. C'est pas la léegi xam nga man ak ñooñu gis nga man tey peut-être bu lu xew ni xewul woon je serais encore dans la gendarmerie parce que man j'avais opté pour servir et boo gisee armée Afrique nu muy doxee xam nga lan moo si war a lan lan eh, lan moo la si génnee muñ cest à xam nga maa ngi doon wax Pape Alé Niang xaru ak am fit du benn xam nga am na yoo xam ne eh, boo ko bëggee def da ngay xaru parce que man peut am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne dama doon xaru en fait du xaru c'est-à-dire instinct de survie la eh, gis nga man ak ñooñu du ñu benn ñooñu peut-être ils ont pris la décision volontairement ñu def lu ñu def waaw parce que même ñooñu jàpp naa ne peut-être am na une injustice dans ce qui leur est arrivé pour certains en tout cas bëgguma tudd seen tour mais man jàpp naa ne ñooñu bu tey nguur gi change changé woon am na ñoo xam ne dañ leen war a joxaat seen droit man loolu laa jàpp mais c'est pas la même chose léegi gis nga pour régler ce problème là ko vous venez d'évoquer il faut forcément réformer xam nga euh, comme ni ma la wax tey mënuñu nangu ma jox la un exemple xam nga man tey j'étais gendarme euh, y a eu une situation ma jóge fa aujourd'hui ma ne je suis candidat à l'élection présidentielle mais en mun nañu ma def président est-ce que vous savez est-ce que est vous savez que c'est possible yàlla rek moo xam léegi man bu ma demee nekk président man demay am pouvoir surtout les généraux alors que je n'étais que capitaine ma dem def capi peuple bi wóolu ma loolu il faut qu'on réforme ça gis nga. Euh, comment. je vais vous expliquer waaw loolu laa lay expliquer nag il faut mettre en place un mécanisme xam nga gis nga ku la wax ne tey man am naa programme bi dala koy wax rek parce que xamul lu nekk si biir gis nga c'est des idées que les en donnent léegi boo eggee da ngay consulter l'armée ce qu'il faut faire aujourd'hui moi en tout cas à mon avis c'est de trouver un mécanisme qui permette au chef d'état-major général des armées au haut commandant de la gendarmerie au directeur général de la police premier président de la cour suprême au président du conseil constitutionnel ñoo xam ne ils auront des garanties yoo xam ne ils seront élus pour cinq ans c'est-à-dire le le militaire il n'est pas élu moom mais parce que ya a le système de la a le de l'ancienneté bu amee ay trois euh, par exemple il y a trois bu demee ba ñu am les trois les plus anciens présidence bi mën na fi choisir kenn mu nommé ko moo bu ñëwee ba nommé ko pour mu destituer ko sauf le militaire est coupable de trahison mu war a am intervention non seulement d'abord des militaires le sous-chef d'état euh, euh, général des armées mu war a am l'intervention du haut commandant de la gendarmerie mu am l'intervention du commandant de la brigade nationale des sapeurs-pompiers mu am aussi l'intervention de la justice et pourquoi pas de la société civile et de l'Assemblée nationale loolu gis nga États-Unis ñoom genre système yooyu la ñu am ce qui fait que man aujourd'hui mun naa pass je peux passer par les canaux parce que dama am xaalis rek am ñu ma soutenir ma dem nekk président bu ma ñëwee kooku yoon daf may tënk ma nommé ko mais kooku duma ko def loolu li ma bëggul bu fekkee ne ku am fulla la parce que xam na ne moom fu mu jaar moo ko mérité ba egg fu mu egg et il a servi sa sa patrie donc xam nga ne nit mun na nekk président te nekk nit ku dëng est que xam nga loolu kon kooku noonu foog ko jox ko ay garantie yoo xam ne tey mun na nommer nit mais mënu ko destituer man pour man c'est comme ça qu'il faut régler la situation. une armée nga mën a nommer de de de des officiers supérieurs. mais mënoo leen destituer oui xam nga les militaires sénégalais. Hmm. c'est des c'est des militaires républicains c'est pas comme ce que vous voyez ailleurs. Sénégal fii c'est-à-dire. est-ce qu'on est prêt pour ça. on est prêt on est prêt c'est-à-dire boo gisee lu xew si diggante bi et comment les gens ont réagi da ngay xam ne les gens sont pour moi en tout cas am parce que man si biir laa nekkoon moi je connais comment réagissent les militaires en tout cas man si li ma gis si li ma yaakaar avec ce que j'ai vécu man xam naa ne les gens sont prêts xam nga quest que xam nga kan lan mooy indi problème Sénégal fii dinañu mus a am fii général boo xam ne am na fulla goo xam ne dinañ ko bëgg a defloo dara mu mu mu déquincer mu c'est-à-dire mu mu fippu bu boobaa mu fippu non loolu la mu fippu non il est xam nga yéen da ngeen yaakaar ne militaire robot la le militaire. non pas robot non xam nga madame. le militaire c'est un citoyen qui sert sa patrie qui connaît les intérêts de son pays xam nga un une personne peut être président et ne pas agir pour les intérêts de son pays. Et un militaire, il agit toujours pour les intérêts de son pays. Kooku, on doit le protéger. Il y a toujours un mécanisme juridique qui permet à quelqu'un des garanties yoo xam ne on ne peut pas du jour au lendemain signer un décret et naan le général tel est remplacé par général tel loolu c'est de l'humiliation loolu il faut que les gens y remédient immédiatement et c'est possible en tout cas moi en tout cas euh, l'histoire de nos armées oui. à part peut-être quelques cas très rares euh, on nous entretient souvent mm-hmm. de de de de la démarche de haut euh, de de de de haut gradé de mm-hmm. l'armée mm-hmm. yoo xam ne devant l'autorité civile ils font prévaloir les intérêts de la nation. effectivement ah, a des généraux yoo xam ne dañu seen way ba tey mu ngi fi. Mm-hmm. Euh, c'est des gens yoo xam ne qui à un instant T. Mm-hmm. dans des situations compliquées mm-hmm. ñoom ils ont fait prévaloir. Euh, les intérêts de la de la de la nation. De, de sur la ce nation. point-là on n'a pas beaucoup de dérives man xam fan laay waxee. mais fan laay waxee. est-ce qu'il ne faudrait pas. Mm. libérer la parole parce que yow. sa cas bi mu bi mu bi mu man libération parole laay wax parce que yow on vous auriez eu des instances yoo xam ne ñoom ñoo leen di représenter di leen défendre peut-être que ces instances là auraient pu euh, défendre vos, vos vos vos intérêts et éviter peut-être yenn yenn yenn situation yi parce que on a boo boo xoolee en en France les les syndicats de police prennent la parole défendent euh, défendent défendent les les les intérêts euh, mm-hmm. des des agents sans pour autant trahir leur serment. Madame, la plus grande armée au monde. c'est les États-Unis mais la parole n'est pas libre xam nga les contextes ne sont pas les mêmes si vous voulez prendre le général Alfred Diallo qui était en 1960 nga bëgg ko indi ci contexte actuel bi le contexte sécuritaire et politique actuel n'est pas le même les présidents ne sont pas les mêmes te le monde est en train de changer il faut qu'on s'y adapte on ne peut pas parce que des personnes peut-être ont agi d'une sorte et que tey aussi les mêmes vont agir la sorte moo tax il faut que nous on s'adapte au moment en tout cas moi c'est comme ça que je mais on ne peut pas libérer la parole dans l'armée c'est impossible. non pas Ce la parole dans l'armée mais mu une organisation. qui va permettre euh, ah, ah. que vos intérêts soient pris en compte. xam nga organisation boobu lan moo koy indi. c'est libérer l'armée li ma la wax xam nga tey yow général même si tu es cinq étoiles si une autorité politique te donne des instructions tu les e lan nga si mën boo si mënul le lendemain tu es remplacé ça il faut l'accepter loolu xam nga. l'intérêt de l'État et l'intérêt d'un parti politique du benn malheureusement ñun Sénégal on raisonne toujours dans l'intérêt de parti du parti qui man pour man c'est ce raisonnement là il doit changer voilà. donc yow tey euh, bu amoon euh, boo amoon possibilité di nga introduire cette cette cette réforme en tout cas moi si comment vous allez la mettre très facile madame xam nga euh, gis nga droit. lenn la loo xam ne c'est c'est facilement c'est-à-dire c'est-à-dire yow parce que aujourd'hui les militaires sont des patriotes en fait c'est pas des militaires nekkutul li ngeen xalaatoon depuis longtemps cest le militaire il sait quel est le mécanisme qui lui permet d'être libre ba pare mu mën a nekk en parfaite cohabitation avec l'autorité politique ba pare muy exécuter ay ordres di parce que le militaire ce qui l'intéresse xam nga militaire bu demee ba commencer fippu rek xam na amal na yaa quelque chose parce que en fait ce qui se passe dans la sous-région boo xoolee c'est c'est c'est c'est le problème en fait mais ñun on est c'est-à-dire on n'est pas dans cette même situation mais gis nga pour bañ ñu yegg foofu il faut qu'on réforme qu'on puisse libérer un peu l'armée ñu bàyyi war ñu bàyyi nit mu crapauté pendant trente ans on le met sous les ordres de quelqu'un koo xam ne il ne pense qu'à ses intérêts man c'est mon avis sur cette question léegi comment le faire et ni ma la wax bu la nit waxee la tey laa koy defee day wax rek pour faire du populisme loolu il faut s'asseoir avec des intellectuels s'asseoir avec des militaires trouver une solution tey boo ko waxee militaires yi ñoo la siy jiitu parce que eux ils savent que c'est dans leur intérêt moi c'est comme ça que je la question